marhaban gàmmuk 2019 yéeni kay l'observateur daal di xëyee ni ki tey ab kaye spécial mu daal di koy jagleel lenn ci ay mbootu tarixay tijaniya Maodo El Hadj Malick Sy bi mu wàccee liggéey kilifa gi ko julle ya bi ci li waral ñu daal di santaane jàngum burdu ba yéeni kay l'observateur bàyyu ci lenn lépp la daal di faram-fàccee ba mu leer nañ le témoin quotidien daal di koy feeluwaa ne fu mu toll ni ya foo sànni mbatt mu takk ci bi la bërëb bu sell ndax ay junni junni taalibe yi bàyyi ko fépp ci àdduna wërngal këpp di utali Tiwaawoon Njaasaan Ceneba kër maam El village Ndiangéen ak yeneen i bërëb ba yu ñu màggale ya guddi gane sikk àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lëte moo ko tijjane ya boobule guddi ya nikk ci gaaw gi lañ ko fas yéene màggal yéema ko juróom-ñeenti fan ci weerum novembre Tiwaawoon di célébé yoon ay junni junni taalibe yu bàyyee ko fépp ci àdduna wërngal këpp rawat na ni ki ci tëj-tëj burdu ba yiir leen ko ci biir yéeni kaay Sud wuñ ko benn yoon ci boobule bërëb bu sell ahankay ndaxte lu war tollu si ñaar junni ya ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn juróom-ñaar fukk ak juróoma ci ay doomi aadama ñoom la ñu tegangum loxo di ñu doon ras déema yéeni kawal fajiri quotidien yaa kawal ak itam kenn demut mu des foofa sanni mbatt mu daal di takk ndax ay junni junni taalibe yuy bàyyikoo Nigéria Niger Mauritania ak yeneen réew yuy buuxante jamono jilee foofu la ci Madina Baye desandi ba tey ak yéeni kawal fajiri quotidien mi addu itam ci toxal mi ñu toxalaat yi les élections locales suñu naatango yi ne yaa ñi fare ci kujje ci opposition mi mu leen tegal la ah kay ndaxte yéenekaay Walf Fadjri quotidien bii lay mi ku jëkk yaa daa di ci dogal ku njiit bu Sénégal Macky ci toxalu ku yile élection locale du def lu dul daa di leen sànk ahankay ndaxte moom Macky Sall la ñuy jile yaa ci ay pexe yu mu nas bu ñu yaa li tax mu daa toxal yile élection du lenn lu dul fexe bi ay chantier yu mu daa di mu daa di leen dar képp yaa mu mën a jox ngànnaay ya ñi mu fas yéene ngemb ci yooyu la élection locale ya yéene kaayu enquête moom la xëyee ni ki tey ya ne ginnaaw buñ ko jëbale ya conseil économique social environnemental la ku fi newoon jóoriñ bu njëkk noppale kootu la déedéeta moom Aminata Touré ya mu ngay joxe lépp lu mu mën ci bopp conseil économique social et environnemental la lu ni mel tax njiitu réew bu Sénégal Macky Sall di koy bàyyi lool xel la moom ak ñi bokk ci boobule kamam ah ndaxte bu ñu sukkandikoo ci yéene moom Aminata Touré ya mënees ci moom ne ya dafa bokk ci ñi nga xamante ne ya ñu ngee sàññi gët photo yu njiitu moom njiitu réew bu Sénégal Macky bu wàccee ci bopp réew mi yaa mu ngee woy ba tey di takkarnaas yaa bu ñu sukkandikoo ci yéen kayu enquête waaye moom Aminata Touré yaa jamono jile yaa mu nga ne tekk di liggéey liggéeyam ñu bëri sax jàpp nañu ne yaa bokk na ci ñu gën a taxaw wa maanaam ñu gën a positionné wu ngir ku ko wuutu moom Aminata ci poste mi mu ne woon di envoyé spécial gouvernement bi ya Aïssata Tall Sall moo ne da nga ci xëtu yéeni kaay les écowa suñu natango yi ne yaa njiital Osez l'Avenir a njiit réew bu Sénégal Macky Sall mujj na ko tabb daal di koy jëbal boobule poste envoyé spécial te monte de yaa moom njiit réew mi yaa yàggoon avenir jàpp ne yaa du ko mën a boole ak bi la poste ma mu daal di fay tekkil ndombol tànkam ki ko fa wutu du kenn ku dul Soda Mariam Ndiaye bokk jamono jile yaa ci ñu gën a féete ndaw ci assemblée nationale yéene kaay Le Quotidien moom li ko soxal mooy coowal Karim Wade ak kii di Khalifa Ababacar di sulliwaat suñu naatangu yi mi ñu daal di fësal ñoom ñu di waa Nations Unies yaa ba léegi mënuñu warnaasu li tax nguur gu Sénégal tere kii di Karim Meïssa Wade ngir a fa ndaxte lay di motifa mi nguur gi daal di fësal ne moom Karim Meïssa Wade dañ kaa condamné loolee doyu leen yéeni kaay la quotidien ya kuréel gi taxaw ngir aar ak ak yelleef doomu aadama yi ak kuréeliku mbootaayu xeeti ya di waa Nations Unies ya ab jaaxle la ñu amee ya ci nguur bu Sénégal ci lank mi mu lànk bi la candidature Karim Wade ak kalifa Khalifa Ababacar Sall yéeni kaay l'observateur mel ni kuy tënk mbir bu ni mel ne yii la ñaari kuréel ba léegi bàyyanguñu nguur bu Sénégal ci mbirum Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall jaa ngeen